jaamu ku dul yàlla réer la gëm ku dul yàlla réer la yaakaar ku dul yàlla réer la topp ku dul borom bi réer la te réer mbokk yi musiba la réer fii ci àdduna boo ko defee da nga jàpp di waaye bis boo nekkee gaa yi jubal àjjana muy siraatal mustaqim ci nga yëg ni nekk na ngaa réeroo doo ci mën a jaar صراط المستقيم أدنى لا تامبالي دي تيري دي أجر أدنى لا تامبالي دي تيري دي أجر مودا يوم جولي بن نولي ووتي صراط المستقيم يون بو جيب يون بو نيان لان من مودا كاي ما باي فيت يون بو ني فا جار ورنا نيو تاخ ام فيت صراط الذين انعمت عليهم من منا نبيين يونتي دافا لا نيو جار وصديقين ني دغ ني فا لا dëgg dëgg dëgg ñii fu ñu jaar ku ko bàyyi jël beneen yoon yaa gën a xam ne da ngaa réer ku ko bàyyi fi yonent yi jaar islam ñëw sunna yonent bi ne sunna ne siraatal mustaqim keneen ñëw na la déedéet àjjana moom il faut nga topp diw mu topp diw mu topp diw ma ne ndaw diw gu topp rek ngeen bàyyi yoon bi yonent bi bis dana ñëw nga matt sa baaraam te doo matt benn baaraam de ñaar ngay matt alquran nee na yawmal qiyaam kurus doo def nii de déedéet oh, nii ngay def sa ñaari baaraam ngay matt yawma yaaddu zalimu ala xam nga àdduna mun nga matt benn wiccax oh mooy na mooy na mooy na bii mën naa jéem dara mais àllaaxira ñaari ngay matt loo te doo mën a bàyyi looy def yawma yaaddu zalimu ala lu topp ah waaye moom mu bopp ak a neexoon ma ànd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci yoon bi shabab bu bëgg a dem àjjana toppal muhammad mooy le guide sallallahu alayhi wa musul wan kenn boppam musul rus xoola bañ na ko bani ana sayyidu walad aadama yawma alqiyama wala faxr te loolu budul woon a ndigal lu ko ci borom bi def du ko wax te waxu ko fii de ci àdduna de da ko doon bañ ci àdduna bugul sax ñu ne ko yaay sang te effectivement xel ak texte yëpp nangu nañ ñi mooy sang mais da koy bañ xamul tax bugul gis boppam boo ko ne yaay sang mu ne bu leen ma gënal ci Moussa man gënuma Moussa ni Ibrahima gënuma Yunus ibnu Matta déedéet du ko sang man abdullahi wa rasul man yo ndax xoolal nga kii modestie rek mbokk yi mu ne yawmal qiyaam may sangu ñëpp te wallaahi puukarewuma ci bàkkoowuma ko ñun gis ku demagul di bàkku di way waaja di way daan di way yelu moom kay ku àndul ak diw moom kay nangam nangam ma ne ah jóge ci làmb jee de waaye dama koo waa ga ñu yën la ko sa biir yax da nga xam nag leen a teel na teel na de معكم غرب غرب والبعث كرم يوم القيامة وبقدر مأجرة صراط المستقيم صراط المستقيم مي السنة المطهرة مي سنة الله قالت من تركتكم على المحجة البيضاء باينا لنتلير وير بخميون بولير نانك yoon bi dafa leer naññ amul pakk amul càmm ku pakk yaa ko indi yoon bi amul laaj la dara amul dig la dara amul yaakaar loola dara moom daal dajale la yoon bi toppal yonente bi mu jox la ya toppal mu teg la ci yoon bi la yàlla sant nga ànd ak moom su ñëwee ba yowmal qiyaam nag courant day coupé courant kamaj lay def coupé da courant bi yore adduna bi moo yore yowmal qiyam mooy jant beeg weer bi ida shamsu ku wiral waas na nag munuñ ci dara waaw wa ida nujumun biddiw yi dem wal qamari ida weer bi da ciy dox wa samaai wa ma badaha asamaan si day dem wal ardu wa ma tahaha suuf si day dem lëndëm dëruus keroog ku jaarul ci siraat al mustaqim danga màtt say baaraam ñu jox ndaw ñi ñëw leen de bu leen kenn tere yonent bi sallallahu alayhi kenn moomu ko yonent ko universel la kenn moomu ko ñëpp ko bokk moo tax kenn sañu koo teg sa bopp du naar bi du tubaab bi du kenn ñun ñëpp yem ci moom te nag li gën a doy waar daf ñoo yërëm raufur rahim bil muminin raufur rahim shabaab yi ñëw leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen lay bàkkoo yéen borom kawar yu ñuul yi yéen lay bàkkoo de borom kawar yu weex yi sànkar nañ dem nañ leneen la topp lu dul ku ci dëpp kon boo nekkee ndaw nekk borom kawar lu ñuul waaye waaye toppal siraatal mustaqim mooy yoon wi nga xam ni moo jub xoj mooy yoonu kontaan mooy yoonu mbégte mooy yoonu xel mu daal ci yoon bi ngay nekk sa xel di daw dal doo am benn sikk ay beneen yoon boo nekk ñu dig la nga naan waaw liñ ma dig moom est am na wala amut est-ce yi waa ji day waxtaan wala waxtaanut waaye bii dañ la ni yonent bi ngay topp sallallahu sallam soo bàyyiwul topp nga àjjana nga jëm moo tax borom bi ne fa maada baada alxaq illa dalal ginnaaw nga ci topp moo tax lu la waay mos wax lu dul sunna ku la ko toppaloo yaa ngi ci dalal lu dul sunna ku la ko fi tegal mi ngi ci dalal bu ko fekk ci dalal ñëw leen ci sunna borom bi ne loolu la leen malaaka yi di wax waxu leen dëgg de leen dëgg te ñun xam nañu parce que yàlla xamal nañu ne jëf ngeen lu ñaaw wax ngeen lu ñaaw kon nag jël leen yoon woowu moo leen di yóbbu jahannam te bu ngeen fa yeggee it du ngeen fa génn de kon gëñ nañu ne A fi ñu leen dalal ñaaw na te ñan lañ fa dalal mooy al mutakabbir mooy ñi nga xam ne dañu dañu rëy rëy nañu ci nangu dëgg rëy nañu ci dellu gannaaw ndaxte loolu rëy rek moo koy def yonent bi sallallahu alaihi wasallam firil ñu rëy batrul haqq axamtu nas buñ la xey deug nga bañ mu ne ku reey ngi noonu nit ñi ko gis rek xet nga ko mu ne ku reey ngi noonu loolooy ku ko def nak torox te da ngay dem ba gis nga joom nga way do delu gannaaw mukk parce que kon nit ñi dañuy xamne joom na ñaata do mo adam mo leen wër na joom nañ mais do musa ka wana ñu delu gannaaw parce que mutakabbirun dañuy reey ñaata ci doomu adam ñoo xamne ne xamuñu mais do len laaj mukk ñu ne xaw ma dañ leen di laaj ñuy wax musiba fekk limaza mutakabbirun kon yalla nañu yalla musa rëy motax borom bi subhanahu wa taala mu ne lu bon a ngi noonu ku alku rek sa mo la alak motax borom bi subhanahu wa taala leral sen situation ci aduna mu ne ñu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah mu mune foo taxawoon nga ne leen kenn dong moye yo jamu rek ñu reuy tay ñaata yon nga koy wax rek ñu ne la ngay diingat waaw kan nga diingat ya xi kan nga diingat yalla rek moye yo ñu jamu yalla rek moye yo ñu barkelu ci mom yalla rek moye yo ñu yaakar ko yalla rek moye yo ñu wekku ci mom yàlla rek moo yeyoo ñu barkelu ci moom boo ko waxee ñu ne dangay ngay koy diingat daa am ku ñuy méngaleeg yàlla xanaa dañu jàpp ne war nañu mun a barkelu ci moom war nañu mun a wékku ci moom war nañu mun a gëñ ci moom xanaa daa am keneen ku dul yàlla bopp am lahum ilahun gayrullah ndax boobu dañu denc ku ñuy jaamu keneen ku dul yàlla ah kon loolu loolu situation la boo xam ne nit ñi dañ ko war a diraasa bu leer dañuy jaamu yàlla nga ne dañuy diingal yonant bi dong la ñu war a roy nga ne dañuy diingal kan lañu war a roy ku dul Mustafa nañ ko kan la yàlla joxoñ ku dul Mustafa mu ne ñu mu ngi noonu roy leen ko kan la ba boo nee nañu yonent bi la ñu war a roy ñu ne da ngay diingal xanaa da am yow beneen roy waaye bu dul Mustafa ba nit ki buy leral ki ñu wara roy nga ne diingat na kon moo bi tudd ko yomb na waaye mu joxoñ la ngay wax yombul de parce que fañ koy jëmale nekku fa fañ koy jëmale nekku fa léegi sax boo nekkee ay nit boo ne subhanallah sax ñu ne yow da ngay lan moo tax nga ne subhanallah ajib booy lekk nit nga ne bismillah ñu ne da ngay digal lan mo tax nga ne bismillah te keneen dina wax moodu ken du wax dara keneen ne biran ken du wax dara ah keneen pakasal wala auto yëngu nga ne abdallah ken du wax dara bu mané allah ñu ne diingat na man extrémiste la man nangam la ya akhi maa lakum kayfa taqulu wa ana khali ana deug problem. moy suñu problème dañ dul nangu deug te dara deug lu du reuy doomu aadama warul rëy de parce que yàlla nag teral na la yàlla may na la lu bari lool waaye réewoo boo seetee da ngaa tuuti namrud mi féetéerlu woon lu ko yàlla mbugale yoo matt bu nekkee ci salal sax doo nelew matt doo nelew yoo bu nekkee sax kii doo nelew ah rek budget yi ñu génnee ci ay santé imprégné ñaata milliards la ci àdduna bi lu ñuy xeexal yoo inna yaa axi doomu adama réyul de mais ana xel yi aynal uqul xel yi rek ñoo fi nekkul il faut nga wut ay anam yu dara amul duggu ci sanké gi def nangam nangam fekk dara du xex ragalo dara lu dul yo nga taxaw féttéeru na da ngay taxaw ci kanamu yalla allahu akbar la ilaha illa allah dañuy sakku xettaliku dañuy sakku xettaliku sakku ndimbal bil amwat ci ku de awil ghaibin wala ku fi newul lan motax tax gis nga fi ñaari point yi mu tuddu ni li ëpp ci société yi ñuy dund ñun rawatina suñu réew mii ci lañuy ñuy bokkaale yàlla dem di xettalikoo ku dee wala xettalikoo benn waay boo xam ne mi ngi à cent kilomètres de toi wala à deux cent kilomètres de toi ngay sàkk xettaliko ci moom dugg oto oto bi def secousse nga woo ko est que dégg na la fan la lay déggee xamul ne sax dugg nga oto bay dégg ne bay yëg na yaa ngi oto baa ngi secousse wala oto baa ngi bëgg a daanu yëgu nga jékki-jékki ne ko diw wala barke diw wala yaa diw léegi lolu nit ñukay def dañ koy def sax titre ku ko deful pour ñom defo dara koku fan la tollu yalla bu dee lu mag rek ngay wut lu reuy koku da gëna mag yalla da gëna reuy yalla rëy ha ah waaw yonente bi alayhi salatu salaam moo du morom moko ëppalé ëppale daraja gën ko fuuf te boko wawon ci place bobu togn nga yalla togn nga yonente bi bokalé fa kay fa ngay dem di woo lek lek léeg boo ni waxee nit ñi di len corriger ñu ne da nga xeeb jiw ma nga xeb jiw wala da ngay diingat du question xeb jiw mais diw fii du am ku nekk da nga am sa place fii du place diw diw yamale ko ci am fii place yàlla la diw place bi am na ko seere mais am bokku ci garatam àggul ci nga fakkastalu di bëgg daanu di ko woo te léeg-léeg sa nga gis ku ko def fakkastalu daanu ba bërëmu di woo diw lan la jëri bu fekkoon diw am na lu mën kay xanaa mu téye la sax ba doo àgg suuf donc amul njëriñ loolu moo nga boole ci daanu boole ci gaañu boole ci am bàkkaar boole ci def bokkaale donc nga boole ay catastrophe yu bari nga daal di koy boole léegi soo woon yàlla moo gën fakkasalu bi ngay fakkasalu kafaara la amaana yàlla daf lay teggil bàkkaar boo def mu bañ la koo mbugalee mu def mu jox la ko benn métit woo giñ ko ci woo nga yëg na yow sa xol nekk yàllaa ci fees sa xol da koo wékk ci yàlla wékkoo ko ci ay mbindaafoon yoo xam ni mënuñu laa jëriñ mënuñu laa lor ki lay jëriñ sa borom la moom moo lay lor te moo dogal mbir mi ci yow nga jàpp ne amaan daf la ciy fànqal bàkkaar woo gi nga koy woo muy wane na yow nitu tawxiid nga kuy wéetal yàlla la kuy wéetal yàlla nga parce que yàlla fi nga ko woo foofu nga ko war a woo jëloo keneen di ko fa woo puusoo yàlla teg fa keneen loolu lu ma ta bàyyi xel loolu moo tax borom bi del wax ne saalikum allahu rabbukum lahul mulk wallasina tad'una min dunihi maa yamlikuuna min xitmir leneen li ngeen di jaamu te yàlla doo toll ne xitmir amuñu ko xitmir mooy lu weex lu woyof dar wu woyof wu weex waaw ne ci biir biir tàndaram nee na amuñu ko in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum boo leen woo duñ ko dégg walaw sami'u gis nga xoola alxuraan ni mu ni mu rawee jamono xam nga bu jëkkoon ku ne ci beneen dëkk boo koy du ko dégg mais léegi téléphone ngi fi ni nga koy mën na koo dégg léegi moo tax mu del si ne walaw sami'u mastajaaboo lakum waaye même bu ko déggee itam li nga koy doyee du ko def xam nga bu jëkkoon boo nekkee ca avion ba wala ca bato ba muy bëggalam nga naan yaa cheikh diw yaa cheikh cheikh ko dégg way legui ne man nga yor sa telephone ne ko Cheikh Diw bato baa beug lab de waaw Cheikh Diw avion baa ngi bëgg a Cheikh Diw degi na ko de way mastajabu la ko lu ci man ah seen avion mom Cheikh Diw day naaw rek ñew <laughs> dawal avion bi <laughs> du sotti te kat neena bu yomal xiyaamee rek wo gog nga ko don wo da koy weddi wo yomal xiyaamati yàq fu ruuna bi seen kii comme waaw ndax yomal khiyam suñu borom bala atté jam yi. day wax ne ku am koo ma doon booleel woo ko wa yawma yaqulu naadu surakaaiya allazina saamtum te nag fa daawhum danañ woote de ku ne xam nga sawaay foofa tirise amu fa ki nga gëmoon ci sa biir xol am na ñoo xam dañoo gëm ne diw sàngam moom yowmal qiyaam ku mu fa jàllale wut doo jàll moo tax boobaa bu ñu dem yàlla ne woote leen kooka lay daal di woo cheikh diw moom lay daal di woo falam yastajiboon koo woo mu ne miir waaw te day weddi sax ne man mësu ma ak yow dara istabarra allazina tubiu min allazina tabaw parce que foofu kenn bëgg ku la fa andil problème koo xam ne yaa ngi ne siiw sa problème bopp sa dossier bopp jàll benn waay jóg fële naan moom mooy moo yor samay bëgg la cee booleel beneen dossier ah accusé bu ñu yóbbu tribunal nga taxaw naan ndax danaa jàll duma du jàll ay gars yi tëbe féere moom mii kat mooy suñu avocat te yow accusé nga waaw nga ne leen man man sama bopp laa tal xaw xaw ma danaa jàllam de moo tax yàq furoona bi sirki koom ah moo tax daan maa kaanoo iyaanaa ya'budoon jaamu nu wun woon de toppuñ nu woon seen bopp lañ toppoon waaw kon yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala leeral nañ ko nee na lahu daawatul xaq wallazina yad'uuna min dunihi laa yastajibuuna lahu bi shay'in illa kabasiti kaffayhi ila alma li yabluqa faahu wa ma huwa bi baaliqi wa ma duaawul kaafirina illa fi dalal borom bi nee na keneen koy ñaan te du yàlla dafa mel na nga seen am ndox au lieu nga tànq ci wala nga wut loo ci tànq nga tàllal sa ndox rek jëmee ci ndox mi waaw defe na jëmal tàllal gi nga tàllal sa loxo jëmee ci ndox mi dana tax ndox mi ñëw egsi ci sa gimiñ waaw kabasiri ka fayhi ilal ma li yablu xafaahu tàllal ay loxom jëmee ci ndox mi defe na ndox mi kon dana ñëw ba ci gimiñam wa ma huwa bi baaliqi kon garaaw gi nga xam ne nag garaaw na ko di bokkaale yàlla ak leneen di ko wut leneen bokkaale gi nag soo ko waxee ñu bari dañ naan ñun bokkaale wuñu te feeg li feeg yaa ngi ñaan man a buntub ñaan buntub duaa di ñaan mooy bunt bi gën a gaaw nit ki génn ci diine waaw ndax mooy buntu wut walla boo gisee njibar yeeg tappalekat yeeg xar nga bunt boobu ci lañ jaar moo tax borom bi tabaaraka ko taala dafa tëj ñaan waa wa isa saalaka an nii fa inni qaribun ujibu daawata daai isa daa accès direct la ñëpp la ko may ku ma woo ma wuyu la buñ la laajee parce que ñu bari dañu jàpp ne yàlla daal dafa sori dafa compliqué yéen jànkate alxuraan yi kay yéen sëriñ si yéen a jotee ci yàlla waaye man mi nga xam ne ministre la wala téyër la wala leen maa nga ca marché bay coowaloo kooku man aw yàlla mënumaa gis yàlla mënumaa recevoir waaw bu ma amee problème yow mi jàng ka da ci jàkka ji yow laa koy nga waxal ma ko yàlla waaw ah. <laughs> déedéet borom bi de demeewul noonu loolu la nit ñi gëm de ay ay ah, yéen sëñ si kay dee leen nu ñaanal rek waaw ah, ca ca nga ñaanal sa bopp ah dee leen nu ñaanal rek ñi féeteeg yàlla kay dégg dégg ñu naan diw nitu yàlla la waaw ku nekkul nituk yàlla nituk looy doon ah nituk seytaane ah yàlla ñëpp lañ ñax moo leen bind ñëpp moom bu dee ci côté bind moom moom ñëpp moom léegi da ci nangul ko ku ko nangul ak ku ko nangulul moo fi nekk waaw ñi ci def moom jàpp ne moom seen nitu bopp lañ xanaa ñoom ñoo moom seen bopp kon waaw ko defee ñu ne moom moom nitu yàlla la yooyu yëpp ay ay bëgg a daw responsabilité am na ñoo xam dañoo ñemewut a face à ak yàlla waaw dañoo bëgg daal moom keneen ko dox ci diggante bi yàlla daal ñeme bëggu bëgguñu ko séq ak moom moom il faut keneen lañ koy séqal yii yàlla daal moom te yàlla moom yërmande ñëpp moom dañoo ragal yàlla ba dañoo jàpp yàlla duuma kat la boo xam ne moom boo wutul ni ko diwanu boole gis nga moo tax sax bu ñu ñaanee sax il faut ñu ne ko ci barkeb diw def ne boo ko ñaanee rek ci tuddoo kenn boo tudd la ko defal waaw comme ni directeur de société yi mel fi boo ñëwee ne ko dana ko la fi yabal ku nu boole waaw xam nga Sénégal moom dañuy wax loolu la ñuy wax koo fol say dossier lu mat mat mat te nii woo ko diw de moom moo ma yow du sotti nit ñi nag loolu lañ jàppee yàlla fokk ñu ne ko ci barkeb diw ci darajay diw te yàlla amul fenn fu mu wax ne danaa def dara ci darajay kenn parce que darajay diw ak barke diw yàllaa koo jox yàlla day joxe dara ba noppi ne ah diw abal ma sa barke bi ma fajal ci waa soxla barke bi ma la joxoon abalaat ma ko ma fajal moom mel ne dese dafa desewul dara moom kon barke gaa yi daal lay abbaat di ci faji aaju ah te barke yi moo joxe ah xam wax ne xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi yàlla lépp lu muy def bi fadlihi wa rahmatihi la koy def waaw xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika fal yooyu yëpp umpale mbirum suñu borom la tabaraka wa